auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa mbokku internet yi nga xamante ni yéen taamu seen émission bu mag bi lépp itam ci jotaayu xam-xam ci biir faj sa jàngoro mbégte la ñuy am tey dellu ci beneen numéro seet si koo xam ne tam dootuñu ko présenté ndax saa su ne li may faral di wax rek buñ ne Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ku ne xam na fu ñu jëm ku ne xam na ka ñu seetu ji moom la ñuy jokkool bëgg a waxtaanee moom lenn ci xam-xam ngir jaglalaat ko askanu Sénégal rawatina suñu bokk internet yi sëriñ Cheikh Ibrahima ñu ngi lay di la ziar waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi macha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa inni u'iisuha bika wa suriyatiha min asaytaani rajim rabbi a'uuzu bika min amasaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaqduruun laa qawla wala quwwata illa billahi al aliyyil Baye Talla ñi ngi lay fay nuyoo. di la dalal fii ci kër gi di la ziyaara. Mm-hmm. di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. Mm-hmm. fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ni aleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyu bu am solo boobu macha allah bi su ko defee rek fi ñu bëgg a dooreetee suñu waxtaan ak yow macha allah rabbi mooy bëggoon na noo xam ne tey jii. yenn xeeti tawat yi nga xamante ni buñ koy waxte ji mooy tawat yi nga xam ne dañoo nëbb wala tawat yi nga xamante ni rarement lañ leen di gis te ñu tàmbalee bëri ci réew mi bëri ci àdduna sax laay wax ñu gis ni Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye am na ci yoo xamante ne dafa mel ni maîtriser na ko ba am lu mu koy saafara ñu bëggoon ngeen ñu tuuti ay leeral waaw tawat mhm. mbooleem jàngoro yi am ci kaw suuf tey dal doomu aadama yi mhm. sabab bi day jóge ci suñu borom subhaanahu wa taala yàlla itam wax na yonent bi ni ko mhm. mbooleem jàngoro yi nekk ci kaw suuf mhm. eh, bind na moom suñu borom subhaanahu wa taala lii faj jàngoro ya mhm. yenn yi nag daf ko nëbb ci ndox mi yenn yi mu nëbb ko ci gàncax yi mooy yaram garab yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ak mbay meek la ca aju lépp yenn yi mu nëbb ko ci biir njanaaw yi yenn yi mu nëbb ko ci bayuma yi mhm. waaye mbooleem tawat boo mën a gis ci àdduna lu mu dansé dansé suñu borom subhaanahu wa taala bind na la koy faj def na ko ab secret mhm. yenn yi mu xamal ko nit yàlla yi yenn yi mu xamal ko médecin yi mhm. loolu moo am ci wàllu jàngoro yooyu jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu li tax ma laaj loolu ndax dafa am ay témoignage ci yenn ci ay moodu moodu yoo xamante ni dañoo nekk bitim réew yàlla dogal ñu jokkoo ci ak sunu jëmm yi am ay seede yoo xam seede nañ ko ci yu mel noonu waaye ci beneen jotaay itam mu mel nii li nga xamante ni mooy wàllu ubbeeku ndax tey moodu moodu yi li cëpp ku fi génn rek ne nu say mbir réussir ngay wut mais ci wàllu ubbeeku tam ne nañ Cheikh Ibrahima Ndiaye amu ci morom ñu ci bëri seen seede dafa ñëwaat ci ñun suñu jëm yi ñu bëggoon tam nga nga nga nga wax yan secret la sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye yor tam ci wàllu ubbeeku boobu noonu waaw euh, bu dee ñi nekk bitim réew moom mm-hmm. Euh, tey wax ci wàllu tawat yi nga xam ne daleen di dal muy tawat yu nëbb mm-hmm. euh, yàlla def na am na loo ci xam ndax am na ay clients yoo xam ni mm-hmm. amoon nañ ko ci fan yi te biñ fi nekkee yaa ngi fi mm-hmm. euh, seen tawat yooyu nag façon tawat yu bees la yuy dal nit ñi yow di nga yëg mettit woo xam ne ak tartar yoo xam ni dangay jàpp ni balaa suba nga faatu te boo demee hôpital dañuy mujj bëgg laa bindal kéeti dof ndax dañuy wax ni vérifié nañ sa yaram lépp. Mhm. gisuñ ci benn tawat. Mhm. Euh, tawat yooyu nag ni ci nit ñi def attention ndax hôpital duñ la gisuñu benn tawat rek commencé la bindal ay garab drogue wala ay dos yoo xamante ne si dafay yàq say yenn organe wala muy détourner sa cerveau nga koy nangu. Mhm. suñu borom dafa yaatule te loxoom da koo tàllal ngir doomu aadama yëpp. ñii fi ñëw buñ leen bàyyi woon ci melokaan yi nga xam ne moom la leen tubaab yi di faje ndax ñenn ñee ngi France ñenn ñee ngi Amérique. Hmm. Euh, bu ñu jógee ci euh, loola faatu dong la lañuy def ndax lu bari dina yàqu ci seen biir yaram. Hmm. Euh, man nag am na lu ma ci xam waaye xam nga mbirum xëyb dafa nëbbu. Hmm. kenn du ko mën a leeral ci ab télé. waaye daal saari jàngoro yooyu nga xam ni. xool nañ ko ci li ñu am rek mooy système bi ñuy xoolee feebar ñoom médecins yi xamuñu ko. Mhm. Euh, ñi ma dal suñu àndee akuk dal bu ñëwee fii ci man mën naa leen koo xamal ci turu yàlla itam mën naa leen ko fajal ci turu yàlla. Mhm. te duñ ci am benn jafe-jafe. incha euh, ñi ñëwoon doon ko faju si fii ci kër gi. Mhm. yaakaar naa bi ñuy ñëw avion sax mënuñ ci woon a dugg. Euh, bi ñuy ñëw ci avion bi dañoo tëdd dañoo dëpp. te kenn ku ci nekk bi ngay dellu. yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi wax sa soxla normal hmm. li ñuy wax tawféex suñu borom defal na la ko bi ngay dellu da ngaa dagg sa biir dellu ni mu la neexee hmm. te kenn woowaatuma jàmbat ko ci baytaala masha Allah mu doon lu am solo wax nga ko léegi ci biir wax ji léegi man man li ma bëggoon xam mooy Cheikh bi est que feebar yooyu dafay luy door a tàmbalee xew wala ndax bu njëkk ba daawuñu ko déggee ni ñu koy déggee tey ci jamono waa jamono bu nag ak seeni feebar hmm. pes moo fi amoon léegi ay virus a fi am ndax nit ñi li ñuy fajoo li ñuy lekk ak li ñuy naan li ci virus di eh, daje ak seeni organe mooy manipuler façon jàngoro yi am mm-hmm. yenn itam nit nit ñi distingué woon nga xam ni dañoo euh, nekk seen côté mm-hmm. rab yi nekk seen côté léegi loolu demeetul noonu nit ñi junne yi dañoo mixé wu léegi dafa mel ni àdduna bi daal dama la ko doon jox ci misaal dafa buskile dafa fees. Mhm. li waaw li daawul fréquenté. di mhm. fréquenté parce que yow mii tey ci jëmmi jamono. Mhm. ñi ngi waxtaan nii waaye waa waa Europe nga koy suivre direct. lii bu ñu ko mosaan a def ca jamono ca ginnaaw. mu ñëw fu ñu ko jaaree. ni àdduna bi fréquenté woon nag nekk benn àdduna léegi. moo tax lu nekk fam nekkoon jóge fa fekki moromam. moo tax nit ñi itam il faut ñu am. ak sincérité ci seen i seen seen dund te xam ni. àdduna mhm. euh, bi léegi benn voie la. Mhm. fa jëm bu yeboo ñu sóoraale ko. Mhm. waaye yu danse yi ngay dégg ci réew mi te amu fi woon. amoon na fu mu amoon. dafi door agsi rek su ko defee nag a ah, faj moom dina toll foo xam ni. waxkat kese du faj boo amul xam-xam moom dina nga toogi nee te jamono toll na foofu lii dal doomu aadama yi boo amul saafara mënoo leen cee génn baytal macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu macha allah wax dëgg yàlla li moo tax dañuy yàkkamti di am ak yow jotaay bokk na ci ni ma fekkee woon tawat jooju am ñu mu daloon bañ jëlee bitim réew indi leen fii am ci tam noonu ay seede yoo xamante ni am na ñu mu daloon ndax borom res wu yàqu wa gis nañ ko te tey ji macha allah ma ngay sant yàlla bu baax a baax waaye yii tamit ay moodu moodu ñoo ma woo. Mhm. seede ni maanaam ñoom keroog biñ jokkoo ak yow. ci téléphone nga waxanteeg ñoom la ngeen waxante tey yi ñuy wax tembe nii fi mu toll nii daanaka ci wàllu ubbeeku ñoom fi mu toll nii alhamdulilah macha allah la ñuy wax fi mu nii ndax am na ci koo xam ne moom la mu ma ja wax moom dañu ma tey jii bu ma laajoon auto président dëkk bi ma ne ma ah danaa ko jële ji jox ko ma ne ko lu ko sabab mu ne ma la ma defal ma bëgg xam secret ouverture boobu noonu lu mu doon. xam nga mbirum doomu aadama. Mhm. lépp dafa daje ci boroomam nit yàlla mi ko sàkk xam ci moom ump na jëmmi doomu aadama rek ni moom. nit nag soo ko bëggee dimbali. da koy delloo ci boromam ngir dimbali ko. Euh, man am na lu ma la waxoon ci man mooy yoruma mbirum jaam ci sabab gu ma ko sabablu. suñ borom moo def lenn feeñ ci man mu feeñal ko ci man ngir jaam ñi jariñoo ko. Mhm. njariñ loolu nag tugaluma ko kenn waaye wàllu ubbeeku ak tëju daa am lu koy def ci nit eh, du ay moodu moodu kese ab mhm. sëriñ sax ñëw na fii baytaal a toog mhm. ni ma sëñ bi man daal lu mat ñaar fukki fan a ngi nii dépassu sama kër tëna ma ma ni ko dinaa la ko xoolal bi ma xoolalee dama ni ko mbooleem gàllaaj goo amoon na ko indi boo takk ak boo takkul la indi yëpp ci kër gi nga indaale ko ñu ñëwee ci ab bool laa ko loo mu xooj ma tiim gàllaaj gi wax ci ma ciy wax bàyyi bi gàllaaj gi yàbbee ndox mi daa ñuul kukk ma ne ko tooke ji moo la tëj waaye yow tëju ko te gën a am wërsëg laata moo génn ci kër gi après yaa ngi takkarnaase <laughs> keroog daa salit naan ma sëñ bi doon nit rek ma ne ko man moom sëriñ ab taalibe la yow yaay <laughs> xam ab ko xam wallay wax dëgg ah. waaye loo xamul mhm. mënoo cee jariñ nit mhm. nit dafa am jamono yoo xam ni ay mbiram day taxaw hmm. li koy déclenché nag du ay caaxaan hmm. waaye eh, ku mën a doon boo xoolee mbiram ba xam lim doon eh, dimbali ko du la jaaxal hmm. ndax ñun doole jiñ yor doole suñu borom la ndimbal doon ko tax a jóg beetaal macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral boobu ba tey bokk na ci li may wax ci seede yi nga xam dafay am ne bii man maa ko dund man ma bëggoon tam nga wax ñu ci secret boobu noonu ndax secret la wala denc boo yoroon la wala nu mu demee ndax soxna sama soxna lañu ñu waroon a opéré nga ne ma bu nu ko opéré fexeel ma jot ci moom bu ma jotee ci moom ndeem mi ngi mën naa koo jox lu mu barkeeloo rek bu soobee yàlla li nga ca bëgg dana ca am. ñu mhm. fexe ba soxna si ñëw nga jël kaas def ci ndox jox ma man maa ko jox mu naan ma diwal ko la ca des. Mhm. waxtu wi ñu ko joxee. ba mu dellu si waatee ca bët set ci suba ga mu mucc ci jàmm ak salaam ak tawfeex teg lañ set puso teguwul ci yaramam. Mm-hmm. ma bëgg xam ndax secret la boo xam ne yow yaa ko moom wala lu la mag ñu jox la ndax léeg damay faral di dégg nga naan ngay faral di wax naan dencu mag te xaw ma ma bëgg mu leer daal fi mu toll parce que waaw. Euh, secret boobu sax ci tarjumaan ji maanaam fa mu jóge dëgg-dëgg. Mm-hmm. borom waxoon na ni. am na nu muy demee boo ko joxee nit fi ngeen toog mu jur yow nag la la yóbbu ñetti fan maa ko def ndax man maa soxla woo mu àgg foofu <laughs> loolu su doon dama ko jaarale ni war a jaay rek yokku ma ci wàññu ma ci mm-hmm. ci bis bi ma la ko joxee boo jógee fii boo moytul bala ngaa àgg opitaal ndax su àggu sax loolu nag xam-xam la mm-hmm. wax naa ne la fii ci réew mii ñu nekk muy senegal mm-hmm. jigéen dootu fi am jafe-jafe yi am doom fii maa ngi dund man wala moom mu xam ma man. kuy accusé nekk biir hôpital sax. Mhm. médecin ni ko du tey. Mhm. buñ ma woowee tama jox leen luñ mën a jot. Mhm. bu ko naanee moom bu leen neexee bu leen naqaree doom jooju du fanaan ci biiram loolu noonu la demee rek ba taal. <laughs> garanti de weesu loolu moom fi ci bis bi kay bu ñu ko naanee mën naa loolu <laughs> mën naa génn. lu day ndeysaan tubarkàlla Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye bëggoon naa tam bala maa génn foofu est-ce que tey loolu ci am doom rek la am ci am doom rek la yem fi mu toll nii wala euh, euh, ku bëgg am doom te mu am jafe-jafe am doom secret bi dafa dafa yegg ba foofu tam. waaw bu dee secret bi génne dara moom ci biirub doomu aadama. Mhm. Euh, juróom ñaari mbir la waaye dinaa la ci may benn. Mhm. benn bi daal mooy doom ju tëw a génn. Mhm. ak méttitu biir boo xam ne dafa tëw sedd. ak lekk gu bon goo lekk yeneen yi nag daa xaw a diis waaye ñett yi moom jël léegi gis léegi mu daj léegi jooni jooni la moom waaw loolu noonu lay demee moom ah barkalla macha allah rabbi jërëjëf la ñu daal di waxaat bu baax a baax bokk na ci itam li nga xam ne moom nga nit ñu bëri dañ koy faral di laaj ñu yónnee woon moo ko mën naa ko laajal da ñu bëri dañuy wax ni nit ku nekk fii ci biir réew mi mhm. ndax ñaanal ko moo gën a yomb wala moo gën a jafe ak nit ki nekk bitim réew waaw ñaan de bu dee ñun ñi nga xam ni yàlla la ñuy ñaan ci ñaan yàlla la ñuy nekk mm-hmm. doomu aadama bi fu mu mën a nekk yàllaa ñu ko gën a jege ñun ñi koy ñaanal kon bitim réew ak biir réew a ci am am na nag loo xam ni boo ko bëggee defal sëriñ bi yow nit ki faaw nga gis ko ndax yaa ko mën a defal mm-hmm. waaye am na ci loo xam ni fu mu nekk mën na ko faa fekk ndax luy dox la jamono boo ko expliqué ni mu ko war a defee rek su ko defee yàlla dimbali ko ci loolu ñaan daal ki nekk ci biir réew mi ki nekk ci bitim réew ki ne ci biir kaso beeg ki nekk ci bite ci koo ñaanal yàlla taxam yoon wi ngay jaar yàlla nangu li nga koy ñaan ci kàttanu yàlla. waaw kaaraange yor naa ci ay secret yu bëree bëree bari waaye sirrul muntawi daal am na doole. aynul anwaar nag mooy secret bi ma gën a wóolu ci sama secret yi te mooy allahu nuuru samaawaati wal ardi kooku mën naa cee fal buur mën naa ko cee folli yaa ngi dégg mën naa cee aar koo xam ni ñëpp ko soxla te secret boobu li tax mu gën a garaaw mooy ni nga ciy aaree doomu aadama noonu nga ciy aaree ma yi noonu nga ciy aaree Euh, mbindaafoon yi muy garab yeeg yooyu ndax yooyu yëpp itam dañ leen di liggéey ni ñu liggéey nit ñi loolu na nga ko xamaale euh, ci jamono mag ña buñ mosaan a xeex doomu aadama tool yi war a bay la ñuy dem am na secret yoo xam ne ci wala matta bay na buñ ko fa defee waxuma la euh, tool ba nag waaye mooy raw fu sax yaay sa garab it ci sa biir kër mag ñi am na lu ñu fay def bind ko ci dattu garab gi du mos a ñoral doom ci àdduna yooyu yëpp ay sekkar la woon jur yi itam nit ñi dañ ciy xeex am na gétt boo xam ni bu dee fi fi pël yi suñ mbokki pël yi yor ah, nag yu bari yi am na sekkar yoo xam ne boo ko defee ci gétt euh, doom du fa juddoo wala bu judd day dellu day faatu am na boo xam ne boo ko defee ci gétt nag yi day wàññeeku waaye du yokk yooyu yëpp nag ay xam-xam la yoo xam ne boo gisee ñu koy développé dafa am ñu koy def ay doomu aadama tax xamuñu lu koy sabab ñoom bari na ñoo xam ne seen place liggéeyukaay dara nekkul ci place ba ab liggéey bu ñu fasul rek moo jàpp place bi. Mm-hmm. nga xam ne ñoom dañuy kaas toujours ci ni dañoo investir ñun nekkuñu ci naanuñu ci te da ala ji daa génnaat suñu loxo ba seey te xamuñu fu mu jaar. fa mu jaar mënuñu koo xam waaye loolu du neen yu mel noonu yëpp nag ay xam-xam da koy def bari nag kilifa koy gis mu xëy. di waral liggéey yaram wi yanu poids boo xam ne leer na ko ni at na ko ba day tëdd du dem wala nga bari koo xamante ne si ni da xëy am problème bët ñu naan fooy yu weex la du fooy yu weex bi yu yëpp ay mbir la yoo xam ne nit ñi buñ xamoon sabab bi rek moytu ko yàlla mën na leen ciy musal dee sax dañ koy moytu ba waxtu wa jot waaye boo sàgganu mën ngaa dee ci waxtu bu sa heure loolu daa am moo tax xam-xam daal bàyyi taala mbirum yàlla la mu yaatu ku yàlla dimbali rek ci ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ te ci turu yàlla yu wér la ñuy dox na ngay jokk ci ñoom ndax loolu yonent yi sax dañ ko daan def ci nit ñi asuntuma laak nag ah, ab jaam simple boo xam ni yow dañ laa boolee jaam ñi imaam yi jiite la nga war a déglu war ngay xam bu baax ndax xam rek mooy jëriñ doomu aadama bay taala jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral boobu xam rek mooy jëriñ doomu aadama ko gëstu moom dafa war kenn ku ci nekk fi ma bëgg jeexale rek mooy sa taalibe boobu di Sangomar Faye ci Espagne nee dafay dégg ismu laay yu saa su ne waaye nee na dafa mel ko déggaat benn ismu laay bu dendandoo ak moom mu bëgg xam ban ismu la ak njëriñam ci jamono. waaw ismu daal mooy tur yàlla yi nga xam ni tànn nañ ko ngir jariñoo ko euh, turu yàlla yi nag dañoo bari euh, am na bu ma ci joxe léegi ci jataay bee ñu génn pour nit ñi di ko jariñoo waaye tur yàlla yi nga xam ni moom lañuy wax sirrul kamal tamit laa ilaha illallah ah, tur la woo xam ne nag génne ko ci turu yàlla yi jëm feneen du mën a nekk su dee da ngay seet rek sirrul kamal mm-hmm. boobu it am na ay lim yoo xam ni nit ki war na koy def mm-hmm. rawatina bu wër néewee trop trop trop trop trop mooy jullik farata gu nekk muy saxoo di zikkër laa ilaha illallah laataa waxtu wi ak après waxtu wi su dee temps may ko ko nag mu koy sikkar naa waxtu julli wu nekk soixante dis fois wax nañ ni gën gaa néew ci yàlla ubbi ko du àgg ñeent fukki fan ak benn képp koo xam ne waxtu julli wu jot di nga def laa ilaha illallah juróom-ñaar fukki yoon te mooy sirru kun fayakun ñaan soxla rek génn ci ay xat-xat wala nga ñaan rek bari xaalis balaa mat 41 jours suñ boroom feeñalal la ko ci lu amul benn werante te am toog benn coono am na ñu koy def nag waxtu wu jot bala ñoo julli def ko bu ñu jullee ba pare def ko am na ñoo xam ne dañ koo saxal bu ñu jullee ba pare def ko ñaar yëpp baax na salaatu ala nabi ngay tëjee salaatu nag nabi ngay tijjee waxtu julli wu ne laa baatub laa ilaha illallah ngay zikkar juróom-ñaar fukki yoon lim bu yomb la bu gaaw la sur la boo xam ni ci sirru sëhri ilan naas yi la bokk jërëjëf bu Cheikh ma Ndiaye kon mayeeg tey ji ba bonusu bés bi xanaa kon mu ngi noonu bu wax noonu kon laa ilaha laa laata waxtu julli bu jël ak après waxtu julli bu jot juróom-ñaar fukki yoon ku koy saxoo ku ne ñi mel ni man te bëgg xaalis kon xam naa ne dootuñu ñàkk xaalis nan fexe bas booloo fool ba xam insha allah wa ban message ngay yónnee askanu senegaal ak kàddu gu mujj gi ci fii jamono toll nii. waaw batal fi jamono toll laaj na yërmande kilifa yi jiite diina ji itam diina ji laaj nag dal laaj na taxawaay. Mm-hmm. ñi jiite réew mi itam seen réew mi ñu jiite muy Sénégal laaj nañ ndimbal ñoom population bi. Mm-hmm. nañ leen dimbali te seet ci yàlla. bañ cee seet leen ni àdduna ak pukkare jamono ji fi mu toll réew mi laaj na ndimbal te njiitu réew mi wax dëgg yàlla ñeewante na réew mi waaye na yokk dooleen jëme ko ci askan wi ndax laaj nañ ndimbal loolu bay taala rawatina nag ci ay dëkkuwaay rawatina ci dund ndax ñaar yooyu rek la ñuy dimbalee nit nit ki bu dee daa am jafe-jafe dëkkuwaay ndox mi nangu ay këram wutal ko ay dëkkuwaay te fexe na ko état bi defare su dee nit ki daa am jamono jafe-jafe dund loolu moom yàlla moo farataal ci njiitu réew mi muy dundal waa réew mi ci alal réew mi loolu farata la ci moom dañ ko ko war a xamal way ñàkk yëpp seen loxo dañ ko war a jëme ci moom tàllal ko ko wóoturam mu ñaan yàlla su ko amul su ko amee nag jërul mu ñaan nan ñu ko jox te yàlla tax loolu rek mooy message bi ma jib baytaal mu mel ni tam gis nañ bi ñu tëjee rek euh, mooy borom réew mi delloowaat na lépp nga à la normale ba nga xam ne moom la réew mi ne mmh. ci lu demee nag ci wàllu mbas mi fi xewoon. Mhm. kaar yi ñu ngi yabaat nañ doon kaar taxi oto yi ñu ngi yab nañ doon def moom daal mesure de barrière daal lañ lañ ko jël waaye waaw am nga borom réew mi tam kilifa la goo xam ne informé woon na trop ci liy xew ci biir réew mi te itam wax dëgg yàlla mbas mi mi ngi wàññeeku ci biir dëkk bi bu baax a baax a baax loolu nag dañ koy sante yàlla sante ko kilifa yi diine yi Euh, sant ko ci moom taxawaayam waaye sant ci armée nationale nit ñu ci jàppale sant ci police tànk yim ci dox jéego sant si corps médecine bi nga xam ne ñoo bokkoon seere loolu lépp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi yenoon loolu te yenni leen ko euh, yàlla suñu borom subhanahu wa taala taxawu leen te lañ ca amee ci njariñ ñu jariñoo ko fii jariñoo ko fële loolu rek lañ leen ciy ñaanal di soññ ñëpp nag ci li ci des mooy kenn ku nekk jël taxawaay bu baax a baax ba nii mu demee ñu mujj ni jeex na tàkk ci réew mi ndax loolu mooy suñu ñaan mooy yéene yi loolu lañ ci doon am luñ ci sànni baytaal. kaddu yu mujj yi mujj yi mooy di fàttali bu baax rek doomu aadama yi loolu ma leen waxoon mooy waxtu julli wu nekk wala bala ngaa julli booy waajal nga def laa ilaha illallah juróom-ñaar fukki yoon. boo jullee ba pare nga def ko juróom-ñaar fukki yoon ndimbal la loo xam ne leneen lu dul loolu mën la ko dimbali fii ci àdduna bu dee ku nekk ci xat-xat yàlla dina ko ci dimbali bu dee ko jaaxle yàlla dina ko teggil bu dee ko soxla xaalis moom xaalis lay am loolu it nañ ko saxal rek balaa yàgg moom ñu bari nañ wàññi jàmbat li bay taala baax na jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci waxtaan ñaanal ko yàlla sax bopp soxna Talla dimbali digal di gën a taxawaay mbooleem yéene yi nga xamante ni naalal na ko askan bi sama borom defal ko ci lu kawe jotam waaye sant itam bu baax a baax boo koy def nga xam ne ñooy soppi bi di ko suivre rawatina ñi nga xam ne ay soppeem lañu di la ñaanal kenn ku ci nga xamante ne mooy bëgg-bëggam ak yéenam ak mébétam yal na yàlla sama borom moom mi nga xam ne moo dul jeexal dara jàpp ndala ko ci dara yu jotaayu xam-xam bi la woon ci biir seen émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro jox leen dig daje incha allah wala di taala ci beneen numéro ak yeneen kilifa incha allah